buri li tax ñu jël ko euh, gëm sunu bopp benn ñaar gëm sunu liggéey ñett am nañ talent ñeent am nañ ay nit fan si bëgg ko parce que parce que lépp looy def say fans daan la woo El Hadj Keita képp ku ñu gis sa nawle bu dem grand théâtre ñu woo la ci ruq ne la ay waaye kañ ngeen dem grand théâtre am ñuy jooy ñuy tuur xéwal <clears throat> ba ma ba ma annoncé euh, ba ma annoncé affiche bi bañ ko gisee ñu bari dañoo tuur xéwal waaw ah, parce que mooy say fans ñi lay bëggee dañuy bëgg ngay jouer fépp fo sa naataango jouer non objectif El Hadj Keita du ay feesal grand théâtre de El Hadj Keita di waykat man sama talent lay xool man sama talent lay wane sama bopp lay wane li may way ni li ma demoon jàngi Mali jaar Mali jaar kasanga jaar l'Afrique ah nañ ko ab talent jaar kasanga jaar ay grand sumu def yooyu noonu yëpp loolu laa bëgg wan sénégalais yi parce que xamaguñ ko ci man sama talent lay wane mais man xalaatuma sax ay fees ak bu ñetti personne ñëwee ci salle bi ma wayal leen loo xam ne duñ buñ ko déggee dinañ ne gongo ndekete kii dafa mën a way loolu moo indi grand théâtre mais du ay buzz ay bu doon feesal pinc mi laa njëkk a kenn ben ko fessal ma fessal ko del, té ça. mi 1500 places 1500 places la gis euh, ci ñamal gis ku jouer grand théâtre asiko mës nga ko gis day am je bobu day am Je ak leneen ak leneen man grand théâtre non niveau bi day parce que bëggatuma niveau boo xam day quoi ngi sama avenir euh, musique ci ngi parce que yàlla mooy mayaam te gëm nañu ko te xam nañu jëm te xam ni ñu bëgg mi am nañu may def international parce que loolu dañ koy parce que dafa voyager teel a xam euh, euh, euh, ni musique amul frontière ni musique amna amna benen façon de musique yo xamné ay comme gospel comme ay ha yépp ay musique la yeneen xéetu musique yo xamné daf ñuy daf ñuy daf ñuy wan ni maanaam àdduna lépp looy def rek jàng ko